kon mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ba tey noo ngi jàll rek ànd ak al imam abu dawud rahimahullahu taala ci charxu kitaabi sunna tey nag mu ngi tàmbalee dugg ci benn bunt boo xam ne bu ama am solo la bu rëy la muy buntub al iman bil qadar muy gëm dogalub sunu borom tabaraka wa taala mu indi ci tàmbale ci xadis bu am solo gannaaw bu mu tuddee isnaad bi muy jële ci Omar ibn Abdul Aziz mu ne kataba rajulun ila Omar ibn Abdul Aziz yasaluhu an alqadar fa katab benn waaye dafa jekki ba mu yàgg nee na mu daal di bind Omar ibn Abdul di ko laaj lu aju ci wàllu alqadar muy wàllu dogal bi yàlla xam ngeen ne Omar ibn lu bari ci asalafu saalix ngi koy tuddee xaamisul xulafaa irrachidin ñi wax ne alxulafaa irrachidun ñi nga xam ne mooy ñeent ñi Abu Bakrin ak Omar ak Ousmane ak Ali radiallahu taala anhum ñeent ñooñu lañ siiwe waaye ñu ne Omar ibn Abdul Aziz mënees na ko yéege ci ñoom ngir ak maandu teem ak jubam ak xam-xamam ba tax diggante bi mu àtte jullit yi diggante bu gàtt gàtt la ñaari at ak tuuti la waaye jullit yi dund nañ ci xeetu xéewal ak ci xeetu njub ak xeetu maandute loo xam ne ba léegi taarix a nga koy fàttaliku muy mu doon ku mag ci xam-xam doon ku maandu ci wàllu atte doon ku xéer ci topp ñi nga xam ne ñoo di asalafu saalix kooku moo taxoon ñu tudde ko xaamisu alxulafaa irrachidin mu ne waa ji nag mboolem riwaaya yi nga xam ne moo ñëw ci xadis bi day wax rek ne am na waaju ko bind waaye waxuñu waajoo ji ba tey nu mu tudd waaye li am solo mooy am na ku ko bind daal di ko laaj dogal bi dogalub yàlla xadis boobu nag xadis bu wér la maanaam bu sax la wér ba àgg ci Omar ibn Abdul Aziz lu bari ci imaam yi nga xam ne dañoo bind ci sunna it génn nañ tontul Omar ibn Abdul Aziz li nga xam ne dañ koo jàppe ne bokk na ci téere yi njëkk a bind donte ab risaala bu gàtt la it teewut ñu jàppee ko ci téere yi njëkk jëkk a bind doomu aadama di ko bind ci lu aju ci wàllu pas-pas bi ko laajee mu ne fa katab nee na Omar daal di bind tontu mu ne amma baad xëy na ki koy nettali dafa xasaf la mu jiital ndax du jekki-jekki rek ne amma baad waaye faawu day am lu mu jiital muy sant yàlla julli ci ab sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu àggale nag mu door ne ko amma baad usika bi taqwallah loolu la tàmbaleeg moom maa ngi lay dénk na nga ragal yàlla ragal yàlla mooy yóbbal bi nga xam ne ku ko yóbbuloo mën a àgg fa nga jëm boroom xam-xam yi nag niñ koy xamlee moom ragal yàlla dañuy wax ne mooy fi'lul ma'mur xasb almaqduur wa tarku almaxduur liñ la digal nga def ko wala nga def la nga ca man liñ la tere na nga bàyyi ko luñ la digal rek defal defal def ba fa sa man yam yem ñu la liñ la digal lépp man nga ko waaye mënoo lépp waaye fa sa man-man yem boo ko jëfee boole ko ak liñ la tere nag moom nga bàyyi ko su tere moom amul la nga mën a bàyyi li nga mënta bàyyi waaye lépp nga mën a bayi su bàyyi daa yomb moom kon ñu ne loolu mooy ragal yàlla ku def lam man ci lañ ko digal bàyyi lañ ko tere lépp kooku ragal na yàlla mu tàmbalee ci moom na kon dénk ko ne ko ragalal yàlla wal iqtisaadi fi amrihi mu ne ko it na doon ku digg doom ci mbir ci ndigali yàlla yi doonal ku digg doom mooy bul ëpp bu yées bul ëpp ba teengal a teengal a ba mbir mi ëpp waaye bul yées itam nag ba doon ku mànk wal iqtisaadi fi amrihi wa ittibaai sunnati nabiyihi mu dénk ko it ne ko toppalit nag sunnas ki nga xam ne moo di ab yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa tarki ma axdasa almuxdisuun baadama jarat bihi sunnatu mu ne ko na nga bàyyi yi nga xam ne nitu bidaa yi dañ koo sos gannaaw bi nga xam ne sunna sax na ba ñëw ba noppi kon foofu boo seetloo da nga gis ne dénk na ko ñeenti mbir yoo xam ne yépp am solo dénk na ko ragal yàlla dénk ko ak digg doomu mooy bañ a ko topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa dénk ko bàyyi lépp loo xam ne dañ koo sos ci diine kon ñeenti ponk ngi yoo xam ne bépp jullit bu ko boole da nga daldi jaar ci yoon wi nga xam ne mooy siraatul mustaqim ay baat yu gàtt yu fees dell ak njariñ yoo xam ne daf lay jox asalafu saalix fan la seen fiq tollu woon seeni wax ay neen nekku ci lu mu gàtt rek day fees dell ak njariñ ñeenti tomb yu gàtt yoo xam ne ku nekk mën nga ko daal di mokkal ci sam xel waaye bu fekkee ne jëfe nga ko rek yaa ngi ci siraatul mustaqim muy ragalal yàlla neel nocc jub bul ëpp bul yées toppal sunna bàyyil lañ sos mu jeex tàkk faaw nag dañuy ànd mu door a sotti loo ci def bàyyi la ca des rek lu sotti léegi la nga gis koo xam ne dana nangoo defee sunna waaye leneen lu ñu ko indi nit nag mu jël boole ci du bàyyi li nga xam ne dañ koo sos kooku ba tey dogagul yoonu sunna ci dog yoonu sunna du gërëm loolu du sunna képp leneen lu ñëw lu mën a doon daf koy delloo donte sax bëti nit ñi wala seeni xel wala seeni xol da ko rafetlu ginnaaw saxul ci sunna rek amul solo daf koy delloo moo tax mu ne ko wa tarki ma ahdatha al muhdithuuna baada ma jarat bihi sunnatu gannaaw bi nga xamee ne sunna leer na ba àggal leneen luñ la indi lu ne delloo mu ne wa kufu munata maanaam ñi nga xam ne ñoo ko sos nee na ñooñu yàlla fegaloon na leen coono boobu suñ borom tabaraka wa taala fegal na ñi nga xam ne ñooy sos di ci sonn coono boobu suñu borom fegaloon na leen ko ci wax leen lim leen digal ak lim leen tere coono jóg ju gëstul seen bopp di jiima seet lu baax ci i xel bañ mën koo jëfe jaamoo ko yàlla coono boobu yàlla fegaloon na leen ko ci leeralal loon leen lim bëgg ku ko ku ko toppee na woon ci alquranam ak ci sunna si yonentam sallallahu alayhi wa sallam waaye nit ñi dafa mel ne dañoo bëgg coono dafa mel ne seytaane dañ leen a gañe ci wet googu dañuy fekk suñu borom tabaraka wa taala la aw yoonam ne la ab yonentam dikk jaar ca jaarale ca ay saxaabaam mu doon lu sax wér leer nañ yépp xam ko nit ña dem nag yor seen xalaati bopp tëral seen bopp loo xam ne lu fees dell ak coono la te loola jamono yi ñu koy def du sax ne dañ koy boole sunna waaye dañuy jël loolu di ko jëfee jël sunna nag moom teg fële day dema dema dem ba la nit ña sosal seen bopp mooy mel ne mooy sunna sunna day mujj mel ne mooy bidaa fa nit ñi ne boo doon jëfe sunna képp yam ci dañuy def ne ku ne ci bidaa nga laa xawla wala quwata mu teg ci ne ko fa alayka bi lusumi sunna fa innaha laka bi idnillahi isma dénkaan yu am solo xam nga ne lim ko laajoon mooy dogalu yàlla waaye gis a salafu saalix buñ gisee koo xam ne aajo woon a njariñ duñ la tontu rek li nga laaj waaye dañuy jaar ak yow ci loo xam ne boo ci jaaree bu baax ci yow nee na ko maa ngi lay dénk nga taqoog sunna ndax sunna moom bu fekkee taqoo nga ak moom danga nga mucc da nga ci réer da mucc ci alkande da nga mucc ci mbugalum yàlla ëllëg insha allahu taala moo tax asalafu saalix dañ daan wax ne sunna mooy safinatu nuux sunna mooy gaalu nuux alayhi salaam ku ca war rek mucc waaye ku ca warul da ngay lab xam nga ne nuux ba ko sun borom tabaraka wa taala yabalee lépp lu warul woon ca gaalam nga rek muccoo ne sunna nag la ci gannaaw bu sun borom tabaraka wa taala yabalee ab yonentam ku dugg ci biir gaalu sunna rek mucc nga mucc nga ci réer mucc nga ci alkane ñuj àdduna mucc nga ci mbugalum àllaaxira kon kooku mooy ki nga xam ne kuy dénk nit te naxoo ko da nga koy wax lii imaam bu mag bii di amirul muminin omar ibn abdul aziz tontu loolu nga xam ne ci ko laaj loolu la ko loolu la ko tontu mu ne ko fa alayka bi luzumi sunna fa innaha laka bi idnillahi isma moom moo lay musal teg ci ne ko summa alam annahu lam yabtadi annaasu bidaatan illa qad mada qablaha ma huwa dalilun alayha aw ibratun fiha xamal ne nit ñi amul benn bidaa boo xam ne sos nañ ko lu dul bidaa boobu sunna dikkoon na lu jiitu ñu koy sos pour wan leen ne bidaa boobu ak réer la kon sunna moo fi jiitu bidaa yi dafa sax yonent bi leeral ko dund ko saxaaba yi dund ko bi mu àggalee nag ñooy sos dooru ñu sos gannaaw bi moo tax bépp bidaa bu taxaw rek bi mu daataan taxaw sunna màbb na ko ba noppi ba leeral ne loolu bidaa moo tax mu ne bépp bu am rek gannaaw bi kon sunna dikk na wane ko mu ne fa inna sunnata innama sannaha man qad alima ma fi xilaafiha mu ne ki nga xam ne moo moo indi sunna xam na li nekk ci safaanub sunna maanaam xam na li nekk ci bidaa loola moo tax mu tëral sunna xam na ne sunna topp ko mooy jubbanti mooy tax nit ki baax mooy tax mu tegu ci yoon mooy tax mu am ngërëmul boroomam kon loolu moo tax yàlla akub yonentam ñi jox wii xeet sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu jëfe ko fa inna sunnata innama sannaha man qad alima ma fi xilaafiha min alxatai wa zalali wa alxumqi wa taamuq subhanallah biddaa gis nga yim feese mooy ki ko ki indi sunna xam ne li nekk ci biddaa ci njuumte mooy loo xam ne jaarul ci yoon ak li ci nekk ci ay suruxukaay loo xam ne boo jógee rek mu ma wax def ak li ci nekk ci ndox nag xel mu gàtt da ngay gis nit ñi mbir mi day àgg ci day day mel ni ñi ci biir lislaam ñu ngi ku di jaamuwaat ay xëram menn mbokk ngi nettali fii démb lu lu doy waar loo xam ne moom euh, lu kéemaane la dafa wax ne jàkka ja nga xam ne moom fa lay jiitee ci benn dëkk ci dëkki réew mi dafa am lu jiitu jàkka ja ku baax ku ñu dafa julli woon ñu samp ay jana wërale ko fam woon ñu dem ba jëmmi jamono am ku ñëw euh, borom alal wax ne dafa bëgg a tabax jàkka ji bi mu ñëwee di tabax foofu jumaa ñu ne bant yooyu ñu sampoon wërale ko yooyu duñ ko sempi dañ koy bàyyi ci biir jàkka ji ñu bàyyi ko ci biir jàkka ja karawaale ko bant ya doon ay ay ay yu nekk ci biir jàkka ji di sampe karaw yu wër ko noonu mu sampe ñu wax ne ka def loola dafa ka ko tabax mu ne dafa am yéene ne dafa fas yéene jana bu nekk mu wutal ko mbubbum weer moo xam ne buñ ko ko solalee dañuy wut ay làmp ci biir muy tàkk su ko defee jana jana yi nekk ci biir jàkka ji doon ab wërmbal noonu loolu xelq la maanaam am xel fekkewu ko xelub doomu aadama doomu aadama lu mu gën a jege xiram maanaam jaamu ku yàlla ak niteem day gën a wàññi ko day gën a wàññi waaye mbokk moom it jazaahullahu xayran nee na moom ci jëmmi boppam moo xëy rek woo ab gorkatam mu dikk daal di gor jane yi ñu sànni ko ci àll te ba koy def moom wax dëgg yàlla risque la ci moom ndax ay kilifa yu rëy ñoo moom béréb ba ñoo ca yor ndigal ñoo ca def yu mel noonu waaye teewut xam mbir maanaam grave ak fam jëm xam ne jàkka ja leneen lay mujj doon moo tax mu fexe ba euh, loola jóg kon alhamdulilah lii ma jublu ci loolu mooy lii mu wax ne sunna ki ko indi xam ne li nekk ci bidaa ci ay njuumte ak i sorukukaay aku ndese xel yu gàtt wala ak ndof wa taamuq aku ëppal nag ku nekkul ci sunna day ëppal la muy jàpp ne diine la di ca teengal di ca attana sonn ba su gisee ku ci nekkul sax mu defe ne da ngaa réer loola boo ko seetloo lu tegul fenn lay doon mu teg ci ne ko farda li nafsika ma radiya bihi al li salafu saalix nekkoon mu doyoon leen sëkk loolu na la doy ñu baax ña àndoon ak yonente ba ak saxaaba yi ñam yaroon mu ne ko la leen doyoon na la doy li <coughs> على علم وقفوا يعني فر لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا mu ne ko ñooñu nga xam ne ñoo doon ñu baax ña nañ gërëmaloon seen bopp jéem koo gërëmalal sa bopp na la jéem a doy ndax kat ñooñu luñ jëful lu nekk xamal ne seen ñàkk jëfe googee ci xam-xam lañ ko teg luñ def lu nekkit la tax ñu def ko ci xam-xam lañ ko teg wahum ala kashfil umuri kaanu aqwa su fekkee gëstu xam-xam la ak génne ay masala ku dul ñoom rek ñoo la rawoon ci loolu wa bi fadli ma kaanu fihi awla loolu moo tax ngëneel yi leen suñu borom tabaraka wa taala jox di leen tudd ci alquran laqad radiallahu an almuminin id yubayiunaka taxta shajara di waxtaan ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moom yàlla gërëm na leen ngëneel loolu kon mu ne ñoom ñoo ko yeyoo la tax ñu yeyoo ko mooy seen melokaan yiñ meloon moo tax mu ne wahum ala kashfi al umuri kaanu aqwa wa bi fadli ma kaanu fihi awla mu ne ko fa in kaana al huda ma antum alayhi laqad sabaqtumuhum ilayhi su fekkee ne li ngeen nekk jamono yooyu Omar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu taala di bindante ak waayam jooji booba fekk na bidaa yi mi ngi tàmbali di sosu ndànk-ndànk mi ngi tàmbali di tasaaroo ci biir béréb yi nga xam ne lislaam àgg na fi moo tax mu ne su fekkee ne loolu ngeen nekk jàpp ngeen ne da ngeen a jiitu saxaaba ya da ngeen a jiitu saalix moo tax ngeen ñoom ci xeeti jaamu yàlla nee na kon de yéen yéen a ngi ci biir wala in qultum innama xadasa baadahum ma axdasahu illa man غayra sabilihim wa raxiba bi nafsihi anhum lay tontu la mooy fa dalika batilun gayru saxiix su fekkee ne da ngeen a jàpp ne liñ sos seen gannaaw loolaay njub ñi ñëw seen gannaaw ubbi nañ bunti njub yoo xam ne ñoom xamuñu ko woon na kon di ñooñu ñu ci ay neen ñooñu day ñu ngi nax seen bopp fa innahum humu saabiquun ñooña nee na ñooñu jiitu ku dul ñoom rek ci yoonu lislaam ñoom ñoo la jiitu munoo am benn xeetu jaamu yàlla wala lenn loo xam ne soo ko jëfee suñu borom tabaraka wa taala daf koy gërëmloo te ñoom xamuñu ko woon jëfewuñ ko woon saa boo yëgee ne yaa ngi def loo xam ne defuñu ko woon xamal yaa ngi ci réer faqad takallamu fihi bi ma yakfi mu ne masala boo dugg te fekk sax na ci diine xamal ne ñoom seeni wax doy na ca sëkk wax nañ ca lu doy sëkk wa wasafuhu minhu ma yashfi mu ne nañ ko melale loola doon na loo xam ne kuy màndi war na laa màndal ci xeetu xéewal ak ci xeetu diine fa ma dunahum min maqsar wa ma fawqahum min mahsar mu ne ñoom day ñoo gën a gàttay lu ñëpp waaye ñoo gën a wobu ñëpp gën leen a farlu itam luy loolu mooy mépp mbir moo xam ne soxlawuñ ko gëstu ci diine nga xam ne xeet wi aajowuñ ko nee na boo fa demee da nga fekk ne ñoo gën a gàttañ bi ñëpp amuñu ci soxla waaye nag lépp mbir moo xam ne diine da koo aajowoo boo dikkee da nga fekk ne ñoom ñoo fa man ñëpp ci gëstu ko ak jëfe ko lu am solo la léeg-léeg da ngay gis nit ñi nekk ci mbir di ko gëstu sonn ca kër kër kër di laaj laaj yoo xam ne boo ko seetee amut menn mbir moo xam ne moo ciy tegu ci diine boo ko xamee amut lu mu lay yokk amut lu mu lay wàññi boo ko réeree ñu di ca sonn mu ne la nag ñooñe lu mel noonu dañ cay gàttañ lu lépp loo xam ne dolliwut seen diine boo dikkee da nga fekk ne booba géew ñoo fa gën dul ñoom kenn jotu gàttañ lu bu dee foofa bu dee mbir moo xam ne boo ko gëstoo ci wàllu diine pas-pas yoo ciy wala jëfe moo bu boobaa boo dikkee na fekk ne ku dul ñoom ñoo la raw foofu moo tax mu ne fama duunahum min maqsar wa ma fawqahum min maxsar wa qad qasara qawmun fa jafaw wa tamaxa anhum aqwaamun fa galaw daf laa bëgg a woon ne ñooñu yoon mo ñu jaaroon mooy siraatul mustaqim mooy li ñuy tudde al wasatiya ahlu sunna wal a ñoo nekk ci wasat la leen féete ndeyjoor ak ña leen féete càmmoñ ñëpp nekkuñu ci njub mu ne ñoom am na ñoo xam ne dañoo gàttañ lu ba àgguñu ci yoon wañ jaaroon ñoom nee na ñooñu lam leen andil mooy dañoo bëcc ngéelewu dañoo manque seen mbir matut am ñoo xam ne dañoo ñëw fekk la saxaaba ya nekkoon ñu xeeb ko fas yéene dolli nee na ñooñu lu leen andil mooy dañoo teengal seen diine jéggi na dayoo taxul ñu aw ci siraatul mustaqim kon siraatul mustaqim moo nekk ci digg bi ki yées ba àggu ci kooku dafa yées ki ñëw ba romb ko itam defe ne daa war a jàll kooku ëppal na moom itam jaarul ci yoon kon li am solo mooy jaar ci digg benn moo tax mu ne wa innahum bayna dalika la ala hudan mustaqim ci diggante ña jaar ne ak jaar ne nee ñoo ne ñoo ne ci digg bi moo tax xeeti pas-pas yi am yépp kuréel yéeg seen pas-pas yu juyoo yu dëng boo seetlu ahlu sunna wal jamaa da ngay gis ne ñoo ne ci digg bi da ngay gis ñu leen jéggi ga tax ñu réer gis ñu leen yées àgguñu ci ñoom yées ga tax ñu réer ñoom ñu nekk ci digg bi moo tax kooku mooy al ummatul wasat mooy xeet wi ne ci digg bi mu ne wa innahum bayna dalika la ala hudan mustaqim lii lépp ab introduction la boo xam ne Omar ibn Abdul Aziz moom la ubbee lee xarab door ne ko nag katabta tasalu an il qadar an il iqraari bil qadar fa ala al xabiri bi idnillahi waqaata ne ko yow da ngaa bind di laaj lu aju ci gëm dogalub yàlla ak saxal ko ne ko xamal ne day lii ngay laaj yow am nga taw tawfiq ndax laaj nga ko ku ko xam boppam lay wax laaj nga ko ku ko xam fa ala alxabiri waqaata ne ko ma alamu ma axdasa annaasu min muxdasatin wala btadacu min bidacatin hiya abyanu atharan wala asbatu amran min aliqraari bilqadar mbirum saxal dogalu suñu borom tabaraka wa taala su fekkee am na loo xam ne dañuy wax ne de nit ñi dañ koo sos nga xam ne mën nañ koo tuddee biddaa ittiwoo bu ko nit ñi ittiwoo gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ay saxaabaam amul woon ci jamono yonente bi ak saxaabaam ndax ñu ko weddi amul woon waaye biñ demee nag ba am ñu taxaw di weddi dogalu suñu borom tabaraka wa taala foofu la boroomi xam-xami lislaam joge taxaw na di leeral mbirum dogalu suñu borom tabaraka ci kanam bidaa lu aju ci wàllu dogal dogalub yàlla bokk na ci bidaa yi gën a teel a sosu donte su dul sax ne mooy bidaa bi jëkk a sosu ci bidaa yëpp bidaa bu teel a sosu moo tax mu ne ko xawma ci yi nga xam ne nit ñi sos nañ ko wala bidaa yi nga xam ne jëfandikoo nañ ko bidaa bu gën a fés saxal dogalub suñu borom tabaraka wa taala coono yi ñu ci def ci wàllu bind ak taalif ak leeral lu aju ci wàllu dogalub suñu borom tabaraka wa taala su fekkee ne bidaa am na kon boobu bidaa mooy bi gën li ci gën a fës liñ jublu ko mooy biddaa luxa ci wàllu loxo waaye du biddaa ci diine kon bind bi ñu bind ci ci wàllu tontu ñi nga xam ne dañoo weddi dogalu sunu borom tabaraka wa taala loolu la jubloo tudde biddaa comme ni ko maamam Omar ibn al waxe woon ca ba nit ñi taxawee ci jàkka ji mu sàppe leen ñuy julli salaatu tarawih bi mu leen xoolee mu ne ni'matul bid'atu haadihi mu ne leen bii biddaa day biddaa bu rafet la te fekk lam ci jublu du biddaa ci diine waaye bidaa bu luñ beesalaat la loo xam ne dafa amoon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu arrêté ko mu ñëw delloo siwaat ko kon la ñu bind di ko leeral su Omar ibn Abdul Aziz dikkee tudde ko foofu bidaa la mu ci jublu mooy wone ne am na ay góorgóorlu yoo xam ne am na gannaaw bi yoo xam ne amul woon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boobu bunt maanaam loolu lu soosu la la ci jublu loo xam ne dafa am gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu bind ak taalif ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekkul woon di bind ak di taalif li lay leeral ne jubluwul ne bidaa la ci sharia mooy li muy bëgg a wax wax ci dogalu yàlla ak gëm ko kañ la tàmbali woon mu ne wa laqad laqad kaana dakarahu fi ljahiliyati aljuhala yatakallamuuna bihi fi kalaamihim wa fi shi'rihim yu'azzuuna bihi anfusahum ala ma faatahum nee na ñi nga xam ne ñoo doon dund ci ceddo ga muy li jiitu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boo demee ci seen biiri wax muy discours yi ñu daan sànni wala ci seen way yi nga xam ne dañ ko daan wax ci seen diggante nee na ñooñu dañ daan tudd dogalub yàlla kon dogal bu yàlla fitra la maanaam bind la ci doomu aadama mu gëm su ko dara dalee mu gëm ne loolu yàlla moo ko waral nee na ñooñu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu ngir daa masaan dal ci kaw nit ngir ñu dalal xelam dañ koy wax ne ko muñal lii sun borom moo ko dogal lii sa borom rek moom moo ko amal say mu nga muñ nee na dañ ci daan muñ loo morom mu ne nag summa lam yazidhu l islaamu baadu illa shidda mu ne gannaaw bu lislaam ñëwee nag nee na daf koo gën a dolli lu aji ci gëm dogalu sun borom tabaraka wa taala moo tax mu ne wa laqad dakarahu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi gayri xadisin wala xadisayni yonent bi alayhi salaatu wa salaam tudd na dogalub yàlla nee na ci lu dul benn xadis du ñaar maanaam ci xadis yu bare bare bare bari la ko tudd kon doy na ci nu xam ne gëm dogalub sun borom tabaraka wa taala ci ponki gëm yàlla yi la bokk nga xam ne ku ko gëmul ku gëmul dogalub yàlla sa sa gëm yàlla du wér nga xam ngeen ne juróom-benn yi nga xam ne moo séq gëm yàlla ci xadiisu Jibril bi mu dikkee laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lan mooy ngëm yàlla ne ko al iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al axir wal iman bil qadari wal imanu bil qadari xayrihi wa sharrihi gannaaw boo gëmee yàlla gëmub yonentam gëmi malaakaam gëmub gëm ay téeréem gëm alaxira nga gëm dogalub sun borom tabaraka wa taala moo ci tegu kon juróom benni ponk yooyu ñoo séq gëm yàlla kenn mënta matal gëm yàlla lu dul dangaa gëm dogalu suñu borom tabaraka wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam tudd na ko ci lu dul benn xadis du ñaari xadis wa qad samiahu minhu almuslimuna fa takallamu bihi fi xayaatihi wa bada wafaatihi mu ne ba mu ko waxee it li aju ci gëm dogalu yàlla nee na jullit yi dégg nañ ko ci moom biñ ko déggee ci moom gëm nañ ko waxe ko ci ak dundam ak gannaaw boo xam ne jóge na fi moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam jot lente nañ ko bokk na ci yi nga xam ne saxaaba yi toxale nañ ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jot li ko taabiroon yi taabiroon jot li ko ñu ko ci téere yi nu kii muy téere Omar ibn mu bind ci masalat qadar ci téere yi gën a yàgg ci wàllu pas-pas ci la bokk te ci laaj boo xam ne ci mbirum dogalu yàlla ci la ko binde moom mu ne fa takallamu bihi fi xayaatihi wa bacda wafaatihi yaqinan wa tasliman li rabbihim wa tadcifan li anfusihim an an yakuna shay'un lam yuxit bihi cilmu wa lam yuxsihi kitaabu wa lam yamdi fihi qadaru mu ne ñoom waxee nañ ko am nañ kóolute gu wér ci ne lépp loo lu xew lu ne ci suñu borom tabaraka wa taala la jóge nangu ko bu wér a wér a wér doya dal itam nag seen bopp ci kanam dogalub yàlla boole ko ak xam ne xam-xamu suñu borom tabaraka wa na lépp leen lu nekk xam na ko lu ne it bind na ko moom suñu borom tabaraka lu jiitu muy xew lenn lu xew lu ci ci dogalu suñu borom tabaraka wa taala ci la xewe loolu lépp mu teg ci ne wa innahu maa dalika la fi muhkami kitaabi loolu lépp teewut dogalu suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ci biir alquran fees dell aay boo jàng wala saar boo jàng bala nga ko génn loo xam ne dafa aju ci dogalu suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne ko minhu iqtabasuhu ci biir alquran gëm googee ñu ko gëm ci biir alquran ci lañ ko niitoo ci lañ ko jële loolu moo tax alquran ak sunna ci gën a leeral euh, dogalu suñu borom tabaraka wa taala ci la bokk wa minhu taallamuhu mu ne foofa lañ ko jànge mu ne wala in qultum lima anzala allahu ayata kada wa lima qaala kada laqad qara'u minhu ma qara'tum wa alimu min ta'wilihi ma jahiltum waqaalu baada dalika kullihi bi kitaabin wa qadar mu ne su fekkee ñëw ngeen ba jëmmi tey ngeen di laaj naan lu tax yàlla wàcc bii aaya wala ngeen naan lu tax yàlla wax jii wax nee na xamal ne ña leen jiitu woon muy ña dundoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lii ngeen jàng ñoom jàngoon nañ lu ko ëpp li ngeen xam wala li ngeen réere ñoom xamoon nañ ko waaye loolu lépp gannaaw ba mu bu dee ci mbirum dogalu yàlla dañoo gëm ne suñu borom tabaraka wa taala moom mooy dogal lu mu dogal mu am lu mu dogalul du am wa ma yuqdar yakun wa ma shaa allahu kaan wa ma lam yasha lam yakun lu ko soob mooy nekk lu ko soobul du nekk wala namliku li anfusina darran wala nafan nee na moomaloon suñu bopp njariñ moomaloon suñu bopp lor dañuy sabab lu rek waaye njariñ ak lor ci loxo suñu borom tabaraka wa taala la nekk loolu lépp bi mu jàllee bi ñu ko gëmee ba àggal mu ne summa raxibu baada dalika wa rahabu ànd ak xam nañ ne dogalu suñu borom tabaraka wa ci loxoom la nekk nu ko neex la koy doxale teewut bëgg nañ lu baax nag teewut itam ragal nañ lépp loo xam ne luy lor la waaye nag xam nañ ne njariñ ci loxo yàlla la nekk lor itam ci loxo suñu borom tabaraka wa taala la nekk bëgg nañ lii bañ nañ lële di jéem a jaar ci yoon yu leen koy jox boole ko ak di ñaan waaye nag teewut ñu xam ne ci loxo suñu borom tabaraka wa taala la nekk kon bunta xam ne daf noo bëgg a jàngal ne jullit bi ngir ngëm yàllaam war a mat wala mu mën a mat war naa xam ne suñ borom tabaraka wa taala noppi na dafa am yoo xam ne yow nit ñi dañ koy faral di jaawale dafa am yuñ la safe nga xam ne da nga caa war a góorgóorlu yow am yoo xam ne yàlla daf koo warlu moo ko fas yéene amal fii ci sa dundug àdduna kañ nga fi ñëw yow xamoo ko programme wala lool yaa ko programme déedéet programme moom kañ nga fiy jógee loolu sa programme ndax kon sa mbir doxee neneen xamu kañ la ak ci nan la ak fan la yooyu ci loxol suñu borom tabaraka wa taala la nekk wërsëg wi nga fi nar a am nu muy toll lu na toll noo xam ne su matee rek benn pepp du ca tegu bu fekkee xaalis la benn franc du ca tegu su matee rek jeexal su fekkee lu tuuti la dikk bu yeex su fekkee dara nga fay yàgg ndax noonu lay programme suñu borom tabaraka wa ndax bu ma tee da war a dem léeg-léeg nga gis koo xam ne yàkkamti nag li may am dafa néew di ko xeer di ci métitlu fekk programme bi noonu la tëddee ndax suñ jekki woon jekki jox la benn li ngay am lépp kon dara dootu dikk te su dara dikkatul da war a dem kon sa wërsëg suñu borom tabaraka wa taala noppi na ci lu jiitu ngay judd xam nag fa ngay juddoo ak na ngay juddoo ak ci diggante ñan ngay juddoo sa dund gii ak la la fii dal ci xeeti ak la la fi dikkal ci wërsëg ak fa ngay dem kañ ngay dem ak la lay yóbbu ak ban dërëb lay dem lay doon yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa moo ko jago moom moo ko garanti téye ko fële yebal la fii nag ne la yow wa ma xalaqtu jinna wal insa illa li yabudun dama laa indi fi yow ngir nga jaam ma léegi nag kon ci xellu su dikkee du di dimbali yàlla ci lim jagool di jiima dimbali yàlla ci lim jagoo ba tax moom li ko waroon far defatu ko léegi la nga gis koo xam ne day ñëw fii suñu borom tabaraka wa taala daf laa waxoon ne bi ma lay indi dama laa wax jaamu ma man dong amal tawxiid bul ma bokkaaleeg dara garanté naa la sa dund ak sa wërsëg doo dee mukk te sa dee jotut donte da sàggan fi nga fi war a jógee it mënoo fexe ba weesu ko donte da ngaa farlu lu gàllaaj ga bari bari bari ak xar nga fuufa yaa ngi yëfee faan su waxtu jotee rek da ngay dem téere yeeg galeen yeeg béjjën yëf yooyu su fekkoon ne su fekkoon ne day aar nit ki ci dee kon li ñuy tudde doggali du am doggali mooy tekki téeréem takkoon gannaaw boo xam ne faatu nu ba noppi su fekkoon yooyu da koy garanti kon loolu doon kon suñ borom warlu na dara fase la dara ne la defal lii lim ne la def ko def ko ci ngay amee ëllëg joo xam ne yëmut fenn moom ci lay baaxe soo dikkee di farlu nag di jiima dimbali yàlla sa kër kër yëpp nga def ko ci jéem fan wi gudd yàlla moom garanti na fan noppi na ci mënul fexe ba mu gudd wala mu gàtt nga ñëw fexe ba fan wu gudd woowu nangu nga cee dépensé lu nekk nangu nga cee rendil ku dul yàlla ay xëram ak ay tuuroog ay yëf yi faana nangu ngaa dikk ci koo xam ne ab xamkat la kuy jéem a xam loo xam ne lu ak seegut ngay férféri loo am jox ko jël li njaboot bi waroon a dund dikk andil ko di férféri ba sa ëllëg ji nga xam ne da ko waroon a liggéeyal sa bopp war ci ji ma góorgóorlu nga fexe ba wékk ko doomu aadama joo xam ne dalay wax ne soo amee sama ngërëm jeex na ngay kër kër yi guddi ak bëccëg ngir am ngërëmul doomu aadama te suñu borom tabaraka wa taala dafa bëggoon moom nga sàkk ngërëmam kon bu boobaa yaa ngi jóg yaa ngi jiima fekk li suñu borom tabaraka wa taala jagoo nga di ko ci dimbali ba li la waroon defatoo ko xamal ne wërsëg bi ak dund gi kooku suñu borom moo ko wërsëg bi da ngay gis koo xam ne daf koy jaral dem ba àgg ci fa mu koy fàggoo sax duutu ko xool ndax xaraam na wala xaraamut yoonam nekkut ci loolu ndax mi ngi génne asaka wala génnewut asaka loolu yoonam nekku ci mi ngi dimbali mbokkum jullit ndax mbokki jullit yi dend ak moom ñi ngi xiif wala xiifuñu kooku yoonam nekku ci a programme lu jëm ëllëg wante addunaam lay jéem a defar te fekk addunaam yàlla noppi na ci yàlla defaral na ko boppam ba àggal sa dërëm war a ñëw kenn mënu ko fanq lii warte ñëw kenn mënu ko fexe ba indi ko ci adduna qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana dara mënunoo dal lu dul loo xam ne su borom tabaraka wa taala moo ko doon ñu ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee bu fekkoon ne li yàlla bind lépp àndandoo nañ jëb bëgg laa lor ci lor joo xam ne yàlla dogalu ko dañ ko man buñ àndandoon ñoom ñëpp bëgg laa jariñ jariñ loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dogalu ko duñ ko mën kon jullit bi ku ñaw la wala moom la war a doon bokk ñaw mooy lan béréb bii ñu la indi lu gàtt gàtt ginnaaw jox nañ lam xel moo xam ne da ngay xalaat loola doyatul ñu wàcce lu toll ne alquran loola doyatul ñu yebal ab yonent boo xam ne dafay ñëw moom gën a dégg ñëpp alquran jooju boole ko di ko jëfe ci kanam nit ñi doon ay doomu aadama yàlla def xéewal gu toll ne lépp lu mu jëfe moom yonent boobu rek toxal nañ ko am na benn téere boo xam ne dañ caa dajale waxi waxkat yi borom xam-xam borom du ma wax ne boromi xam sax waaye ñi nga xam ne boromi ngér lañ doonte ngéri réer lañ sax waaye ay xalaatkat lañ leen di tuddee ñu di leen laaj kenn ku nekk wax wax wax ju gàtt gàtt ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu agsee ci Karl Marx daf ne kooku mooy benn jëmm ci histoire koo xam ne lu mu def rek toxal nañ ko jëmm joo xam ne lu mu def rek toxal nañ ko kon kooku doon na loo xam ne kon jullit yi war nañu yëg loolu yonent boobu dañ ko yebal fi ngir mu leeral diine ginnaaw yàlla dogal na nag dara nëbbutuut te moom it kat nëbbul dara yahud yi ci seenug iñaan doon nañu wax naan bii yonent daal mbiram doy na koo xam ne àgg na ci du denc dara dara jàngal na leen lu ne lu ne ba nu ñuy demee wan ak sax jàngal na leen ko booy dugg ci wana bi looy wax boo fa demee looy def boo génnee looy wax sax loolu diine ji sàgganewu ko ginnaaw sàgganewut yu demee noonu kon sa lépp a ngi ci lépp leer na lu saxul ci alquran saxul ci sunna say bu nga taxaw te xam ne li bokku ci bu la ci kenn nax mën nga caa sonn nag mën nga caa rafet njort mën nga cee ñaq mën nga caa def lu nekk waaye xamal ne loolu lu yàgg fa sun borom tabaraka wa taala yàlla du nangu lu dul diiney lislaam mënee suta sos ci diiney lislaam loo xam ne day àggale sun borom tabaraka wa taala ci yàlla day àggale nit ci sun borom tabaraka wa taala wa man yabtagi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirin ku wut jenn diine judul diine lislaam kooku sun borom tabaraka wa taala nee na kenn du ko nangu te it bu ëllëgee day perte l'islam jooju nag mooy l'islam bi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu fi daataan jógee yàlla wàcc na ci moom al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina tey jii day laa mot li nag seen diine ji tey jii day laa matal sama xéewal gi ma leen doon xéewal tey jii day l'islam ji nga xam ne mooy l'islam tey muy ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu fi daataan jógee suñu borom nee na mooy l'islam ji ma gërëm loo kon bu nee ku wuti lislaam judul ji da ngay perte kon lislaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax loolu dana làmbuwaale ki nga xam ne dafa ne ca bitim lislaam kooku day perte moom amul wax ki dugg ci biir lislaam ba àggal nag ay yéeneem yu rafet wala ak ñàkk xamam wala ñu réeral ko tax mu jël leneen taf ko ci biir lislaam defe ne ci lislaam la bokk te bokk ci kooku war naa yeewu war naa delloo am xelam te xam ne seytaane ngi koy nax jëf yi du ci bari ji la ko suñu borom tabaraka di nangoo du ci rëy gi fi bëti nit ñi la ko sunu borom tabaraka wa taala di nangoo waaye mi ngi koy nangoo ci ne ki mu yebaloon ne ko demal leerali alquran fa lam jaare woon ñu jaare noonu ci loolu rek la koy nangu lu dul loolu du ko nangu loolu julli yi war nañ koo xam ne kon ab xadis ngoog bu mag boo xam ne jóge na ci imam bu mag muy amirul muminin omar ibn abdul aziz danañ tudd fii lenn ci ay tomb yoo xam ne danañ ko jariñoo ci xadis boobu eh, ñu gàttal ko insha allah kon danañ ci jëlee ne لم يكن عمر بن عبد العزيز أميرا عادلا للمؤمنين فحسب لكنه كان إماما في أصول الدين وفروعه لذلك كانت الاستفتاءات تأتيه وهكذا كان أمراء السلف الصالح Omar ibn Abdul Aziz kon ndekete lim siiwe woon ne moom buur rek la woon bu maandu ndeke mbiram kon yemul woon foofu waaye dafa nekk woon attekat bu maandu ñaareel ba boole ko ak doon imaam joo xam ne ku xam-xam-xamu diine la loolu moo tax laaj yi daan jóge fu nekk ñi ñëw di ko laaj ci mbirum diine kon bu ñu waxee amir ci salafu saalih jubluwuñ ne rek mooy koy atte waaye borom xam-xam lay doon imaam lay doon joo xam ne ba waxtu julli jotee sax mu dikk jiite nit ñi julli buñ wëlbati koo dellu ca attewukaay ba mu atte leen kon yooyu l'islam noonu la noonu la tërale mbir mi kon ñu xam ne adduna ji ak alaxira ji ci l'islam amul bu fekkee ne imaam ji nga xam ne moom lañ tudde amirul mu'minin wala président say ba nga tudde ko ko turu beex la wala loo mën a xew mooy njiitul jullit yi boo dikkee fekk ko ci jàkk ci muy jiite laaji diine yi di ñëw di jóge fu nekk muy dikk muy tontu bu laaj laajee bindu téere sax mu bindu téere nii ko Omar ibn Abdullah si defee wëlbati ko toog di atte jullit yi atte bu maandu goo xam ne ci histoire mosuñoo gis ku mel ne moom lu dul ñe ko jiitu woon ci kon kooku nga xam ne mbir mi ku lislaam yàgg noonu lay addunaam ak àllaaxiraam lépp day àndandoo benn yoon te xam ngeen ne Omar ci wàllu maandute ni ñu koy waxee suñu borom tabaraka wa taala am na ay xeeti xarbaax ak i kéemaan yu am ci jamonoom yoo xam ne maandute te bi sallallahu alayhi wa sallam am na xadis yoo xam ne dafa wax ne bu sultaan maandoo buur su maandoo danañ dem ba bàyyi may ci àll bi sax dañuy maandoo Ibnul Jawzi ci téeréem bi mu taalif ci Omar ibn Abdul Aziz nee na dem nañ da ko ginde mu ne wallaahi ba gis ci jamono Omar ibn Abdul Aziz ay xar yuy for ci àll bi di rombanteeg till yi te duñ leen laal muy xar baax boo xam ne ko doy waar la ci jamono yu Omar ibn Abdul Aziz ngir ak maandu la waxee dara ci ay maandu tem da ngay da ngay da ngay yëg ne kooka yëgoon na responsabilité jullit yi seen mbir daf koo àggoon ci gën koo ñor mbirum boppam loolu nag day lu jafe mas naa koo li mbokk yi fii defe naa ne ci bind bu jàll benn gouverneur dafa mas a ñëw yor ay problème yoo xam ne aju ci biir xeet wi la jekki ba guddi mu dikk fëgg ko fëgg njiitul jullit yi mu ubbil ko mu daal di taal ab làmp di wax ak moom ñuy waxtaan ci la aju ci liggéey ba di ci waxtaan ba loola rek lew mbokk moomee daal di tàmbali di ko laaj na nga def nag ak naka njaboot jeeg coono yi mbir mi bi ko Omar daataan tontu mu daal di fay làmp bi ba àggal laaj ne ko alhamdulilah ñu ngi ci jàmm ñu toog di waxtaan ci lëndëm gi biñ waxtaanee nag ba wax kooku jeexal bi mu daataan génn mu daal koy laaj yow kat gis naa ne bi ma ñëwee suñu waxtaan lépp booba yaa ngi taal muy waxtaan waaye am na fu ma toll bi ma la laajee da daal di fay làmp mu ne ko li ko waral làmp bi ci baytu maalul muslimin la jóge alali jullit yi la bi nga ñëwee di waxtaan ak man ci lu aju ci intérêt jullit yi yëg naa ne sañ naa koo taal waaye nag ginnaaw loolu jeex na ba yaa ngi may laaj sama njaboot ak saa kooku yëg naa ne làmp gi sañatu la tàkk loolu tax mu fay ko kon kooka e, béréb ba mu toll woon kon yeyoo woon na ko ci wàllu maandute ak ci wàllu xam-xam ak ci wàllu njub ak ci wàllu sax sun borom tabaraka wa taala dem bay feeñal kay xar baax ci béréb kon kookoy tomb bu njëkk bi moo di kooku nekkul woon amir rek waaye ndekete dafa nekkoon amir boole ko it nag ak di borom xam ñaareel ba wujubu itibaaci sunna wa tarki almuxdasat maa tawassuti wa tarki alxuluwi wa tafrit war na ci bépp jullit mu yëg ne kon topp sunna munta ñàkk bàyyi yiñ sos muy bidaa yi itam ne lu munta ñàkk la ci diine nit ki mu jóg loolu lépp su àggee faw nag mu ne nocc jaar ci siraatal mustaqim bu mu ëppal ba teengal diineem bay àgg ci xaraamal lu yàlla xaraamalul waaye bu mu yées itam ba àgg ci sàggan bay daganal lu suñu borom tabaraka wa taala xaraamal ñetteel ba luzumu sunnati ismatun min almahalik wa sunnatu safinatu nuuxin kama qaala ahadu aimati salaf war na ci bépp jullit ba tey kon mu yëg ne jàpp ci sunna moom rek moo mën a musal nit ki moo ko mën a musal ci alkane moo ko mën a musal ci réer walay naxaate kat moo ko mën a musal ëllëg itam ci mbugalum sunu borom tabaraka wa taala ñeenteel ba kullu ma xaalafa sunna la yaxruju an kawnihi xataan wa zalalan wa xumqan wa taamuqan lépp lu juyoo ak sunna comme noonu ko Omar waxee radiallahu taala anhu mun ta génn di nekk njuumte ak i suruxukaay ak i xel yu gàtt wala defe sax wala it nag ak teengal ak bët juróomeel ba alxayru kulluhu fi liqtidaai bi salaf saalix li annahum kaanu aclama bi umuri diini min alxalaf yiw wépp mi ngi ci topp ñi nga xam ne ñooy asalafu saalih saxaaba yonente bi ak i taabi'uunam ñooñu ñoo ëppoon nit ñi xam-xamu diine te ñooñu nag ñooy mag ña lu bare bari ci nit ñi bu ñuy wax dañuy jéng jullit yi dañ leen di jéng ndax bu fekkee gox bu nekk boo wëree ci àdduna bi ñenn ñu nekk danañu wax ne sun mag ñi def nañ lépp ba kenn soxlaatu dara loolu ci làmmiñu seytaane la ñuy wax mag ñi góorgóorlu nañ def nañ li leen war yam nañ fañ mën a yam ku man a góorgóorlu dolli ca loola day na yëg ne xeer bi soxla na ko ku ca mën a dolli xam-xam man caa dolli jëfe man caa dolli ragal yàlla xamal ne kooku bunt la boo xam ne xeer bi soxla nañ ko ko fëgg kon bu ñuy wax mag ñi dëgg dëgg dëgg du gox mu nekk nga ne sun mag ñi waaye mag ña mooy mag ña ñu àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu génne ca daara jooja ñooñaay mag ñi ku dul ñooña rek gone moo tax waykat ba ne humul kibaaru wa man min baadihim nacha'u humu sigaaru sigaaru lilmi wa diini hmm? humul kibaaru ñooñaay mag ña man min baadihim nacha'u ñi sosu seen gannaaw humu sigaaru ñooñaay gone ya sigaarul ilmi ñooy gone ya bu dee ci wàllu xam-xam wa diini ci diini kenn jotu kon mag ña mooy bi sallallahu alayhi wa sallam yar génne leen yebal leen ci àdduna ñuy tasaare diine ku ñëw gannaaw bi da ngay roy rek jéem ba fa sa kem kàttan fa mu yem nga yem fa suñu borom tabaraka wa fay la la nga def ci wiir su fekkee sellaloon nga la nga def ci njuumte mu jëlal la jéggal la ko keneen ku ñëw gannaaw bi nag góor-góor loola war yow itam xool mag ñoo ni fi nekkoon la leen suñu borom tabaraka wa baax baaxee ci ay njub nga jariñu ca lañ am ci ay njuumte nga leeral ko xeet wi ne leen lii kat ay njuumte la bu leen leen ci topp ñaanal leen suñu borom tabaraka wa taala jéggal leen ko foofu rek lañ toll juróom-benneel ba xuturatu lqawli bi anna ma xadasa baadahum yumkinu an yakuna hudan li anna dalika ittihaamun lahum biltaqsiri aw biljahl lu grave la ñu jàpp ne gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam mënees naa indi benn xeetu jaamu yàlla benn xeetu jaamu yàlla mën naa ñëw seen gannaaw boo xam ne day doon njub boo xam ne ñoom suñ diggoon duñ ko xam loolu lu grave la ci diine jullit bi di ko fas ndax su boobaa benn tuumaal nga ci ne dañoo gàttañlu fuñ jaar ba jaamu yàlla boobu xamuñu ko wala jëfewuñ ko wala tuumaal nga leen ne ñoom dañoo réer ndax suñ ko xamoon dañ ko jëfe kenn doon leen bëgg lu baax kon li xew mooy yow mi mujjee ñëw yow yaa waaye ñu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam yar ñoom réeruñu jëpp jaamu yàlla goo xam ne saxoon na ci jamono yi suñu borom ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jóge ci suñu borom jottali na ko ay saxaabaam ay saxaabaam jottali nañ ko xeet wi agsi na mi ci biir téere yi yëpp yaa jaamu yàlla goo xam ne xamuñu ko woon ñoom yonente ba ak i saxaabaam nga bu fekk nit ñi nekk ci ne léegi dañuy laaj ñii li ñuy def lu mu doon xamale loola du jaam yàlla juróom-ñaareel adamu suluki manhaji salafi salih imma an yakuna ifratan aw tafritan aw huma maan ñàkk ci ngir mi nga xam ci la yonente bi alayhi salatu wasalaam nekkoon ak i saxaabaam day te ñooñu ñooy asalafu saalix loolu faw rek day doon ak ëppal wala ak yées wala sax mu boole ñaar yépp léeg-léeg mu am juróom-ñetteel ba al iqraaru wa taxaddusu bi nicmatillaahi maanaam jullit bi ndeke suñ borom dana ko defal xéewal mu di ko muy waxtaane xéewal gi ko suñ borom tabaraka wa taala defal te bu boobaa loola du dugg ci li ñuy wax fuukanewu at na sa bopp xam nga omar bi mu daataan tontu laaj bi nee na ko fa alal xabiiri waqa laaj nga laaj bi waaye agsi nga nag fi koo xam ne ku xam la ku ko xam la dëgg la saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ko yar bokk ci taabi'oon yi bu xam-xam boo xam ne du bu kon bokk na ci mu waxtaanee xéewal ak suñu borom tabaraka wa taala mu nangu ne ko lii ngay laajte laaj nga ku ko xam kon loolu bokkul ak fuukarewu bokkul ak dàmm juróom-ñeenteel ba kaana al urf inda kathirin min as-salaf itlaaqu al-bidaa al-lugawiyya fi kalaamihim as-salafu saalih lu bëree bëri dañ daan wax baatu bidaa fekk liñ ci jublu mooy bidaa luga biddaa ci langue bokkul ak biddaa boo xam ne biddaa diine ci langue waxoon naa lépp loo xam ne lu sosu la rek te bokkul ci diine loolu biddaa la ci wàllu langue nii rek waaye nag bokkul ak biddaa diine biddaa diine mooy lu sosu ci diine loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci saxaabaam dunduñu ko woon xamuñu ko fukkeel ba baadu ahli aljahiliyati kaana yusbitu alqadar lenn kon ci eh, ñi nga xam ne ñooy ña jiitu woon lislaam muy ña doon ci ceddo ga ni ko Omar waxee ndekk kon am na ci ñoom ñoo xam ne daanañ saxal gëmoon nañ dogal ak suñu borom tabaraka wa taala na maa wax ne bokk na ci loolu waxi Antara ibn Shaddad euh, di wax lu jëm ci dig yi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala digale dund yi maanaam dund gu nekk fa mu yem ma nga doon wax ne wa anal maniyatu fi lmawatini kulliha wa ana almaniyatu fi lmawatini kulliha wa taanu minni saabiqu l dafa doon dafa doon dabu xam nga ne antara ibnu shaddad al absi ci ñu dund lu jiitu lislaam la bokk waaye waykat bu rëy woon ci arab yi doon itam jàmbaar joo xam ne dafa mënoon a xeex lool dafa mënoon a xeex lool xare bu mas a dugg rek euh, ngañaay dana ko ca dana ko ci jëlee waaye nag ñoom dañoo mënoon a damm foofu mi ngi wax ni moom ci jëmmi boppam sax moom nee na weexaayam tax na dafa mel ne ak dee mu ne wa anal fil mawaatin kulliha nee na bépp xeex bu ma dugg rek day mel ne nee na moom ci boppam ak faatu la koo xam ne ku mu jub si rek nga xam ne day jub la mu ne wattaxul min mu ne jam gi muy jam sax boole ñëw geeg doole ji koy boole li nga xam ne képp comme jam ku nekk da ngay daal di faatu nee na dafa mel ne jam-jam yooyu sax day xaw a jiitu dogal bi waxi kuréel la nag waaye li ci am solo mooy eh, mi ngi saxal foofu ne dogal bi ci boppam kon lu am la maanaam fixé nañ datu kenn ku nekk waxtu wa nga fi war a jóge fukkeel ba ak benn laqad tawaafara alsahabatu wa taabiuuna wa man tabiahum ala isbaati alqadar wal imaani bihi kon saxaaba yi ak ñi nga xam ne ñooy taabiuun yi ak ñi leen topp ñi ñëw seen gannaaw ñoom yépp ànd nañ ci gëm dogalu suñu borom tabaraka wa taala ne lu mu amal mu am lu mu amalut du am wa anna al imaana bil qadri ومن الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء وبكتابته وبكتابه الذي أحصى كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين kon gëm ci dogalu suñu borom tabaraka wa taala bokk na ci bokk na ci gëm ko nga gëm ni suñu borom tabaraka wa taala xam ne lépp li ñëw ak li ñëw dara ump ko tabaraka wa taala te it téeréem bi nga xam ne dara faatu ko ñii wax ne mooy allawxul maxfuus ñii ne beneenu téere la waaye lu mën a xew lu nekk bind na ko moom sunu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne wa kulla cheyin axsaynaahu fi imaamin mubin lu xew lu nekk bind nañ ko ci ab téere boo xam ne téere bu biir la kon ak xam-xamam teeg na lépp lenn lu nekk yi bind na ko gannaaw bi nag lenn lu nekk nattale na ko dogal ko seet ban waxtu la war a am mu am ca waxtu woowu fukkeel baag ñett adamu takallufi almasail almutashabiha iqtidaan bi salaf alsalih xaytu raaw dalika kullahu wa alimuhu thumma sallamu lillahi fi amri alqadar bañ a sonal sa bopp bañ a xóotal sa mbir ci lu aju ci wàllu dogal bu yàlla léeg-léeg ñu gis ñu ci dugal ay laaj yoo xam ne day dem ba xóot ba àgg ci mën a jaxas sax nit ki ci wàllu ngëm yàlla am te bu leen fàtte ne buntu dogal suñu borom tabaraka wa taala ci juróom-benni ponk yi ci la bokk te ponk yooyu lépp xëybu la xelum doomu aadama mënu koo peeg lépp ba jeexal ko tàkk ñu wax naan ñu ngi nettali ci histoire ak xeex bu mag boo xam ne mas naa xeex xew ci gërë gërëg xam ne daanaka xeex woowu ca lañ xaw a jeexee ci diggante ganaar ak nen lu jiitu xam nga yooyu mbir la yoo xam ne xelum doomu aadama mënu ko peeg mënu ko peeg day mbir yu rëy la yoo xam ne yaa ngi koy romb di dem ko ñëw rek miin ko waaye boo ko jimee gëstu da nga xam ne yow doomu aadama dong nga lu ci jiitu doo xam am nen li xam noonu mooy ci ganaar lay génne ganaar it liñ xam mooy ci nen lay génne boo bëggee xam nag lu ci jiitu sam xel mën naa dem sax nag ba yàqu lu dul nag da ngaa doon ab jullit nga xam ne leer na leen suñu borom tabaraka wa taala mën naa jekki ba mu yàgg mu ne ci leer na nekkal loola daal di nekk mel na mu ko bëggee dem ba mu yàgg bu fekkee nen la woon mu daal di toj ganaar daal di ci génn wala ñaari ganaar wala ñett wala nu ko bëggee su ko defee yëfee déparé foofu ñi gëmut yàlla ñooñu dem ba di ci xeex ndax dañoo gëm ne mbir yi tàmbalewul fenn dafa jekki-jekki rek am ginnaaw noonu lañ gëmee gëmee nag ñoom ñu ne suñu borom tabaraka wa taala innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun mu ne mu lii mbiram mooy su bëggee dara am daf koy wax amal mu daal di am ku gëmewul noonu yow yow da ngaa war a dox sax ndax li wér te wér mooy li la wër ci ay yëf boo ko seetloo seetantal ko sam xel du ko mën a fekke waaye nag gëm yàlla moom problème bu ci nekk solution baa ngi ci wetam dafay daal di leer ci moom naan du ca dof dara du ko ca dal fukkeel baa ñeent min simaari l imaani bil qadar al ilmu bi anna ma sha allahu kaan wa ma lam yasha lam bokk na ci meññeet mi nga xam ne boo gëmee dogal suñu borom tabaraka wa taala daf koy meññ ci sa xol mooy nga xam ne li yàlla dogal mooy nekk lu mu dogalul du nekk loolu da nga daal di mucc ci féer-féer ji ak ragal doo ragal ku dul yàlla day gëm dogalub yàlla day dëppoo ak ragal yàlla ci boppam ak nag bañ a ragal keneen ku dul moom ndax da ngay daal xam ne kat keneen mënalu la dara na mënuloo dara ndax kat kenn ku nekk li wér te wér mooy su fekkoon ne say noonu luñ bëgg ci yow def ko lu nekk kon ba tey taxawatoo yow jóg nga fi mais mënuñu ci dara suñu borom tabaraka wa taala moom moo yore programme mooy doxal nit mun laa tax a wopp nit mun laa tax a faatu nit mun laa defal lenn loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dogalu ko woon kon ragal ci ak fërfër bi day daal di day daal di wàññi ko almunafata bayna al imani bil qadar wa bayna al ragbati fi al xayri wa rahbati fi char bëgg lu baax ak di ci yëngu di ko jéem a am ak bañ lu bon di ko daw ñaar yooyu dàqoonte wuñ ak gëm dogalu suñu borom tabaraka wa taala ndax moom mi nga xam ne moo amal dogal bi moo ko wutal ay yoon lu baax li dafa am yoon wu ci jëm li nga xam ne lu baaxul dafa am yoon wu ci jëm jox la am xel nag day ahdayna am na ci tey jox na wan na la ñaari yoon yi jox la sam xel na la toppal bi wala toppal bi waaye nag moom xam-xamam feeg na ba xam na fa nga nar a jëm yow waaye du caagin nag moom moo la forcé na la faaw yaay tànnal sa bopp waaye nag soo tànnee ba jaarit nag ba àgg na ko sante suñu borom tabaraka wa taala te xam ne jëfam la jëfam la ndax moo la xottil yoon bi moo la bind moo dogalit ne yoon wi ku ci jaar àjjana a jëm kon soo jaaree ci yoonam ba àgg foofu hmm? na nga wax ne alhamdulilahi rabbil alamin su booba li ñu mujjee moo di ahlu sunna wal jamaa kon seenu gëm dogal yàlla mu ngoog buñ seetloo kuréel yi ci juuyoo ak ñoom ñaari kuréel lañ benn bi mooy kuréel boo xam ne dafa weddi dogalub yàlla ne suñ borom tabaraka wa taala amalut mbir yi te itam mbir mu xewagut mu nekk suñ borom tabaraka wa taala xamagu ko subhanallah ñooñu kon ñu réer lañ ñu réer a réer lañ ki ko jëkk a sos waa ji ñuy wax Maabad al Juhani la ci jamono ju teel la ndax boobu Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab mi ngi dund xadis ba dana ñëw ci kanam ñëw na ci saxiixu muslim ñëw ci kitaabu sunna ci sunan abi daawud dana dikk yaatu loolu waaye kooku moom moo jëkk indi xalaat boobu tasaare ko ci biir xeer mi yëgal leen ne mbir mi ci boppam day jékki-jékki rek noonu soosu su ba àggal borom bi door koo xam loolu loolu loolu ak réer bu mag a mag la euh, léeg ne boo waxee loolu nit ñi danañ ko rëylu lool waaye bu ne da ngay xool jëfee ni nit ñi léeg la nga ne na muy defee bu fekkee ne gëm na dogalu yàlla gëm na ne suñu borom tabaraka wa taala lu mu dogalul du amit ci jëfam moom ma ngi koy wetti loolu booy xool xeet yi da nga koy gis lu bare lu bare bare xoola bét yi ñuy wut ak yeeg ku xëy di dem ne faaw nga fexe ba dajeeg jigéen wala nga dajeeg góor wala nga xool picc mu jaam naaw jëm nii wala mu naaw jëm xeet yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne su fekkee ne gëm dogal suñu borom tabaraka wa taala sax na ci xool jullit bi yooyu duutu doon problème am day xam ne mbir mi ci loxo suñu borom tabaraka la nekk mu wàcceelu ci yàlla seet fi a jaar nag mu jaar fi mu dox ci fàggu wërsëg xam ne suñu borom tabaraka wa moo koy dogalal bu fekkee leneen la war a def itam mun de jaar ci li nga xam ne moom la ko suñu mu def beneen kuréel bi beneen kuréel la boo xam ne ñoom gëm nañ ne suñu borom tabaraka wa taala moo dogal mbir yi waaye nag dañoo dem ba gisee ko noo xam ne wuute naa ni ko ahlu sunna wal jamaa gisee moo di moo def lépp lépp lépp ba yow mbindeef mi amoo jëf sax far jàpp ne yow mbindeef loo def lu ne dañ lay forcé jàpp ne nit ki dafa mel ne rek aw donc woo xam ne day naaw ci kaw ngelaw lee ko yor rek di ko jëmale fii boo baaxee du ci yow boo bonee du ci yow boo noonu mbir mi du noonu sunu borom tabaraka wa taala moom moo la bind xam na lépp lenn lu lekk bind na ko waaye nag yow yaay jëf dalaa joxum xel ne la tànnal def misaalam mooy koo xam ne daf la bënnal xëttal la ab robinet andi ko ba ci sa kër ne la ndox maa ngi ci kër gi kët léegi nag yaa ci def soo bëggee naan yaay waaxu ba ak ci robinet bi nga ubbi xel li naan waaye boo toogee ni lépp sotti na du ma naan kon doo aw nga jëf waaye soo jëfee ba àggalit nag lu tax ñu ne a wa maa taamaloon yaa ak sa jëf lépp suñu borom tabaraka wa taala moo leen boole bind moo di lool yi ngay naan bul fàtte ne kat kéel ak bën l robina bi moo ko fi indi ba boo naanee ci nga naane kon am nga jëf am nga ak tànn yaay tànn lu baax wala nga tànn lu bon eh, loolu moo tax diine am loolu moo tax ak pay itam am su dul woon loolu kon maandu te gi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala kon loolu day mel ne daal di dàqu su fekkoon ne moo la force ne la faw nii rek ngay mel ba noppi bind a jaarale la fi béréb ba àggal ba nga àgg mu daal lay dugal sawara kon loolu du am benn xikma daf laa joxom xel ngay tànnal sa bopp di góorgóorlu di ñaan di am tawfiq di jàng di gis sunna di jëf ba jaar ci siraatul mustaqim suñu borom tabaraka wa taala baaxe la yërmandeem dugal la àjjana kon faaw da ngay góorgóorlu suñu borom tabaraka wa taala gindi la càggante gi toujours boo gisee suñu borom tabaraka wa taala léeg-léeg nga gis ko dem ba mu yàgg eh, alquran di wax ne xatama allahu ala qulubihim dafa dem ba mu yàgg yàlla kaste seeni xol dootuñu xam lu baax loolu du jékki-jékki def waaye ñoom ñooy jëf-jëf joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala daf leen di fayal loolu ñoo ko jëfal seen bopp nekk noonu itam ñi nga xam ne suñu borom daf leen di jagleel ak ku goo xam ne dootuñu réer gannaaw bi ñooñu seen effort bu ñuy def ci la leen yàlla demee ba suñu borom may leen loola walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana hmm? ñi nga xam ne ñooy góorgóorlu di kër këri suba ak ngoon di gëstu di jéem a jaar ci siraatul mustaqim yàlla nee na maa leen di gindil sama bopp ñu jaar ci yoon wu jub wa fële itam ba muy wax ña réer dafa wax ne yudillu bihi kathiran dana ci réeral ñu bari wa yahdi bihi kathiran dana ci gindi ñu bari wa maa yudillu bihi illa alfasiqin illa alfasiqin yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa maa yudillu bihi illa alfasiqin ña nga xam ne ñoo dëng ñooñu lay réeral ña dëng ñooñu lay réeral kon nga xam ne dëng gi effort nit ki la jëfam ñu faye ko ak réeral ko nag ki nga xam ne dafa jéem a góorgóorlu baax it suñu borom tabaraka wa taala moo koy faye yubbanti ko kon loolu mooy lu aju ci xadis boobu jóge ci eh, Omar ibn Abdul Aziz radiallahu taala anhu kon ñi yem ci foofu ba ci beneen daje insha allahu tabaraka wa taala wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain